gouvernement ci biir loi boobu dinañu wax yan anam lañu ñu war a taxawee pour encadrer kuréel ndax président Macky Sall yaakaar naa kuy xam ku ne lan la soxla kuy wut ku ne lan mooy yéeneem ci biir réew mi duñu ko jàngal rawatina ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci keppaaram ndax nag dañu ànd ak moom mu tàmmal ñu wër réew mi dañu ànd ak moom mu tàmmal ñu toog ci ndës dañu ànd ak moom mu tàmmal ñu wormaal sutura jox maqaama doomu aadama kon tey bu ñu ne économie sociale et solidaire li ci président Macky Sall di wut mooy kenn ku ne ca fa nga ne mën-mënu état fekk si la seet naka la lay jàppale ci loolu moo tax loolu dañ ko dugal ci biir loi bi dugal ci ba ngay juddu ba ba ngay atteindre sa vitesse de croisière fi nga war a jàll yan avantage lañ la war a jox nan nga war a taxawee te nag ñu ne loolu dañ koy dëppale ak doxalinu jamono moo tax ci biir loi boobu aussi prévoir nañ si ay uti d'opérationnalisation ndax bindu loi baax na trop mais li gën mooy boo defaree sa loi am sa décret d'application ba pare nga mën ko jëfandikoo jëfee ko ci biir terrain bi moo tax def nañ beneen programme bu ñuy wax programme promesse ci biir programme boobu dina am plateforme numérique bu ñuy wax seen label ESS nga xam ne acteur yëpp dinañ leen encadrer dinañ leen mën a jàppale ci liggéey bi rawatina nag kuréelu jigéen ñi mais dinañu mettre l'accent ci kuréelu ndaw yi ndax tey si tey bu fekkee ne comme ni ko yenn ci député yi waxee lépp li nga xam ne microfinance mi ngi koy def te mu tas tasal ci secteur yi te loolu muy lu jaadu aussi parce que dañu war a xam politique de la microfinance fan la jóge ba ñu koy sos ay ONG ku njëkk indi di dem ci gox goxaati di fekki kenn ku ne ci la ngay yëngatu mu fexe nu mu la jàppale bi ñu demee ba ci biir ba état bi gis ne lii kat lu mucc ayib la fekk programme yi di jeex ñoom partenaires yi di dellu état bi taxaw ne lii dama koy continuer di dem di lebi xaalis di indi di jox institution de microfinance yi ñu koy joxewaat ci biir askan bi looloo tax ak encadrement boobu war nañu mën a génnee gannaaw bi ñu boolee mutualiser action yi am yépp ñu door a mën a génnee pàcc ci jeunesse yi te foofu tollu toll daf may permettre ma yegg ci ñetteelu tomb bi mooy yan jumtuwaay la ñuy yor pour dëgëral microfinance ak économie sociale et solidaire wax ngeen fi ñaar mooy taxaw ci wax ngeen FIMF le fonds d'impulsion de la microfinance fonds d'impulsion de la microfinance yaakaar naa ne bu ñu jàppoon ne du lu am solo période du mbas mi wane ne na fonds bu ama ama am solo la ndax nag FIMF ànd nañu def 14 régions du Sénégal fekk acteurs yi ca fa nañ fa ne dem nañ ba Bétenti dem ba Albadar ca Kafountine dem ba Kaolack dem ba jurbel dem ba Thiès dem ba Ziguinchor dem ba Sédhiou dem nañ fu ne yóbbu ànd ak fimf fimf dem dimbale li ñuy wax mutuelle isolée lan mooy mutuelle isolée mutuelle isolée mooy ay jigéen damay jël yu jigéen ñi ñoo xam ne dañu dajaloo seeni dërëm ak ñaar dërëm dajale ko moo xam nu mu toll ñu ne dañuy créer suñu mutuelle dem nañu mutuelle Adama Aïssé bu Podor nee nañ bi mu amee ba léegi ñaar fukki at musuñu jot financement guléet ci FIMF te FIMF yemul rek ci renforcer mutuelle isolée yi dina leen jox matériel bu ñu liggéeyee dina leen jox moto bu ñu déplacé woo yegg ci nit ñi dina leen jox ay système de gestion yoo xam ne dina moderne ba seen liggéey gën a mucc ay kon lu mel noonu bu amee dañ koy renforcer kon bu fekkoon ne bu fekkoon ne fi joxuñu ko importance mbas mi rekk wan nañu ne dañ ko war a dooleel rawatina nag ñun bi ñu ñëwee xam ne économie sociale et solidaire du lenn lu dul inclusion économique mais surtout sociale inclusion sociale mooy na ñëpp bokk te président Macky Sall nag lim ma sant ne ma na ñëpp bokk ñëpp dinañ bokk te ma koy assumé ñëpp dinañ bokk boobu day tegu ci yoonu liggéey dinaa ko teg ci yoonu liggéey bu wér pëñ ndax nag honorable député Aïssatou Mbodj dafa wax lu am solo sa kàddu yi tey nga ko wax ma dégg ko ndax tey lañu ñu jàkkaarloo nga wax ko waaye dama yàgg di dégg di xool di saytu sa parcours jëf ja ngay jëf ci politique bi nga tàmbalee politique ba léegi dama ko xool seetantal ko ba di dalal sa xel ci ne comment euh, kii yi nga ma jox conseil yi nga ma jox danaa ko jëfandikoo ndax xam naa ne fi nga jaar ba nga fa jaaree takk nga ban kon duma nangu jaar fi nga jaar te nag may dalal xelu askan bi ndax ñoom ñoo ñuy seetaan askan bi moo ñuy seetaan kon tey li may wax askan bi laa koy jagleel am na ñaar yoo xam ne duma ko mës a boole ci sama action institutionnelle ndax nag ki ma tabb tabaat ma muy le président Macky Sall ak ay gor aka am fulla aka am fayda aka bëgg liggéeyal Sénégal kon ku mel noonu du la jël tànn la ci sa biiri moroom ngay yàq liggéeyam walla nga koy kayang kayang te ku bëgg yàq liggéeyam duma ko nangu ndax sama responsabilité bopp la ba tax na ba tax na ñaar ba tax na ñaar duma ko boole ñëw fii indi ko ci hémicycle bi bi ci jiitu mooy sama wàllu diine ku mu neex nag ne yow kilifa diine nga ku mu neex ne sëriñ bu mag nga ku mu neex ne euh, kii bi nga bokk tarixa bi nga bokk moo gën tarixa yépp waaye li dàq mooy nga jëfee ko bu fekkee ne dangay wax rekk te saa bu ñu jëfee jëf ji wuteeg wax ji dafay xaw a doy moo tax waxu diine du ma ko dugal ci li nga xam ne moo ñu indi fii ci hémicycle beneen bi ci topp mooy wàllu règlement de compte politique loolu c'est les petits politiciens qui le disent moi je ne règle pas de combat politique à l'hémicycle je respecte les Sénégalais les combats politiques je les mène à la base dans le cadre de ma coalition et de mon parti li ci des nag mooy décret àllarba ah fekkee ne da nga toog remplacer sa morom yow kay yaa ngi xaar sa bos kon nag ak ñoo gëm yàlla te nag décret àllarba taxuñu woon liggéey te décret àllarba duñu tax ñu bàyyi liggéey dañuy continuer di ko liggéey ba mu saf sàpp ba tax na su fekkee ne rek am naa fu may tëjee monsieur le président mooy di dalal seen xel. di dalal seen xel ci ne budget bi ngeen di voté ak li tax ngeen voté ko danañ ko jaarale fi mu war a jaar maa ngi leen di gërëm di leen sant.